Anyways. nopp dalooti xibaaru buzz tàmbalee ti waxoon naa leen ko de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 foofa tamit nee ñu l'accident yi lam fay am bari na ay waay daw ndànk dal ndànk lu ni mel tamit moo xew ca Touba ab minicar moo fa daw ba dal di wëlbatiku këpp fëttalaw ba am benn nit bu fa ñàkk bakkanam fukki nit ak benn jële cay gaañu-gaañu cay tali bi mbir mi nag nee ñu fi mu amee ay kilomètre dox diggante ak Touba naka noonu ci la ñu informé sapeur pompier yi ñu ñaw jël si blessé yi yóbbu leen ca l'hôpital Matlaboul Fawzayni néew ya ñu yóbbu leen ca morgue ba fi mu ne nag gendarmerie ubbi na ci ab l'enquête waaye mooy la ma waxoon rek l'accident yi mat naa seetaat moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa la xew ca Rosso doy na waar duwaañe buy wuyoo ci turu Léo lay samba booy fekk ci bérébu liggéeyu kaayam door ko ay balu fetal yu bari ba mu jaare fa ñàkk bakkanam duwaañe boobu daal ay boori vingt heures demi la ko fa samba booy yi fekk ci post de douane ba nekk ca Rosso Sénégal door ko ay bal ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ëskay jëf ju ñaaw jooju nag ba léegi li ko waral kenn xamu ko te it nee nañu zone boobu insécurité total moo fa am ma nga nekk ca diggante Sénégal ak Mauritanie waaye foofu ak liggéey bu am solo ba fa woy takk der yi di def yépp zone boobu ba léegi dafa des di nekk zone bu dangereux ba tax maire bu Rosso Sénégal ne mu ngi mettit lu jëf ju ñaaw jooju di ko mettit lu ba fu mettit lu yem maire bi teg ci ne foofu lu tax insécurité ba doy fa waar mooy commerce étranger bi rax ci dolli traversée clandestine bi ak li ñuy tuddee vagabondage frontalier moo tax ma jangoro gi dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax jaaykatu laj koloñ bi nag li mu doon def ëpp na sa waay daal ay ndox la doon jël di ko sol ci ay butéel di ko jaay nit ñi may <laughs> may waay dëkk bee metti nag sa waay daal buy waxaa léeg yow benn parfum bu baax la lay wan xet ga neex nga ñam bu leen waxaalee ba juboo rek mu génne ci sac bi buteelu laj koloñ yi mu sol ndox daa di la koy yóot boo demee seen kër nag ba tuuru ci ngay xam ne ndox nga jënd <laughs> ay waay réew mi jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax tabaski bi nag comme na woon fa woon julliti senegal yi defati nañ ko ci division ma ne réew mi nag loolu moom daanaka léegi mu ngi fii bëgg a doon ñaari julli nekkatu fi événement Sénégal nag day réew moo xam ni diine ji ku nekk ni ko ko déggee nga koy defee waaye bu yemee ci wute rek nag jàmm moo tax bu julli di jëmee ndar ña ca des jëm ndakaaru julli gi tamit am na ko defee ci seeni kër ndax pandémie waaye teg nañ ko fu wér nag am ñeneen ñoo xam ne nii dem nañ defee ko ci bérébu jullikaay yi sàmmonte ak mesure barrière yi <laughs> waaye teg nañ ko fu wér nag <laughs> yàlla na yàlla nangul ñëpp moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax yàgg naa ko wax de tabaski benn fan la ña defoon lu ñu man tëdd nañu noppalu da ngay gis ñoo xam ne dañuy liggéey ni mbaam di yàq ni golo <laughs> waay waay waay dama koo xamul sax benn fanu tabaski dong nga leb ci ay boro boro boro boro bor ba son moo tax tabaski tabaski jeex na ñu toll nii déwén rek waaye di leen baalu ak waay mu doon seen xibaaru buzz dig dage samedi ci yeneen xibaaru buzz